naa def. maa ngi fi. yaa ngi ci jàmm. maa ci jàmm kay. ñu dañoo yebaloon pour ñu ñëw fii amoon ay xat-xat yu ñu nekkoon rek ñu bëggoon nga seetal ñu ñaata nga seetee. 1000 francs. soxna si danga am jëkkër. ma jógal hmm. ci sa bopp de. Hmm. Hmm. liy xeej de neexul. lii de maa la ko wax. sa jëkkër mu ngi fi du. deuxième femme de lay waaj. mingi ni nii bëggante ngeen torop mais ki moko xañ jaam ki moko xañ jaam te waju ñuul ji mo koy dox moy dox ngoro gi bo ci jugul nak fi ak 3 mois la la may sey bi day am ah mingi ni man sama set du fet ah waaye loolu tam nan laa yàggul de. yàgg na tuuti yàgg na tuuti sa jëkkër de mi ngi si yoonu ñaareel. Ah. te boo si jugul day takk femme bi deuxième femme. Hmm. seen sëy bi neex na torop nee naa la ñaareel bii di dox nii génnaan na si nii boo ci jugul bu duggee yow dangay dem nañ si yàlla musal loolu nag maa ci gaaw man mii maa ci gaaw mhm. mm. di nga dem ba tok sa jonkasi gi de xel ñetti bolu laax xar bu wex tamit ko xalu ben melo nga saraxe ko bu mu am ben tas nga genné ko sarax bi nak du dem dang koy indi fi man dana ko ray togal lako ko jox ci ñima koy jox saraxa ci sama jinne bi man mhm. xanaa xamoo ci biir seet bi am na lu ma gént loo xam ne ni nii kenn xamu ko te bu ma ko waxoon Sénégal Sénégal day yëngu ñiy toog naan coupe du monde bi kii yee gagné sëriñ bu nekk jug di wax jigéen ñee góor ñi di jug di wax man am na yàlla lu ma may ma toogaale ci bu ma ko doon wax àdduna day tukki moo tax waxuma woon rek damaa bàyyi woon ñuy débat rek li ma lay wax 10 ans gént naa ko 10 ans toog ferme tey la ma yàlla may pour ma wax tey nag damay wax xanaa xamoo Dakar jam ñaajo lay mujjee capital bi jam ñaajo la jam nee naa la des na tuuti banlieue bi day dem ba mel ni New York City heure New York boo bëggee ma wax la ko léegi léegi léegi léegi léegi waaye jarul ma koy wax na nee na bul wax. Mhm. Mhm. du ma wax jarul may wax. Mhm. nee naa la lu mu lay laaj te lenn kese la te bëriwul jasneer la lay laaj bi nag bii xeeñ bi boobu la lay laaj mhm. xar bi ak jasneer bi ngay boole sa sa sarax loolu kese ndax sama bi ma yore jasneer bu xeeñ bi surtout maa piir bi la man bëgg nga sama cousine bi tam dafa am ay problème mhm. bëgg nga rek dina leer lay waxal rek mhm. du am de. du am. am seetaan. de dangay seet. waaw day seetlu waaw. dëkk bi kat ñëpp ami problème. ah baax na. dëkk bi daa toj léegi de. boo jugul ñu daan sa kaw de. walaay walaay. Hmm. soxna si yow xanaa dangay waaj a tukki. waaw maa ngi doon lijjanti ay kayit de. kayit a ngi nii de waaye lii xeeñ tamit da neexul. Hmm. ki ngay bëgganteel dafa am jabar. Hmm. waaw. nee naa la deuxième femme ngay doon de. si kàttanu yàlla. Hmm. dina ko doon waaye jigéen ji bëggul sëy bi. li may wax lee ci gën a ndaw nee naa la pale bi tey tuxu nii pale bi lañuy naan déjét yóbbu ko. ah soxna si de man loo ma si jàppale ma jël ndax bëgg naa ko bëgg na ma. pour man sax ay affaire cat la yooyu ndekete yow daa am koy gàllankoor jàppale ma ci waay. Hmm. allahu akbar yow sëfa ngay indi. sëfa naturel waaw. ndax sama jinne bi dafa leel te leelam bi dafa sori lool waay. bëggatul benn karaw safa bu gàtt bi rek la bëgg couleur boo indi rek waaye bu mu gudd na gàtt ndax moom dafa leer gudd bi da koy déranger daal. incha allahu rabbi waaw. jërëjëf jëf mhm. boo leen ñëwee rek ku nekk mën ngaa indi ñaari junni ak juróomi téeméer si kàttanu yàlla boo leen ñëwee lépp dina baax. moom jësneer ñaata yow jësneer douze yaar. douze yaar waaw. xanaa jinne bi daa gudd. jinne bi daay xajul fi may wax ak yéen ni fi ne nii mu may gis jug len bala ngeen di dem. jug len bala mo ñëw 500 la indi ak cheveux. waaw ak cheveux. jere ci des waaw ak dégg nga. Mhm. ok jere man am kuma xamul deg dégg jere jërëjëf wa ci bu bu deg ya ngi teud li ma la bàyyee woon noonu laa la fekkate nii nga teud billahi ma ngi nii tëdd rek boobu léegi. ni teud rek. waaw ah gis nga boobu léegi daal maa ngi fi tëdd comme def ma dara moom ma ni naa toog sama biir néeg bi rek. man sax waxuma loolu tey bi may jóge marché dama dem ba marché daal romb foofu ñu fay rang kenn ñu ne day seet ba pare ne nañ dafa mën ay xeer lay seetee dégg naa mën na trop lu muy def maa bëggoon nag rek chéri ñu dem foofu. ah daal man bu ma sañoon daal. man de garaawul man affaire yi comme da doon neex moom jékki-jékki neexatul da ngay jël lépp rek delloo ko ci loxo yàlla quoi te nga xam ne àdduna mënoo fi nekk chaque jour muy neex chaque jour muy neex mënul nekk quoi fak am moment yoo xamante ni nii xam nga dafay metti nga toog nuñ ko mais soo bëggee saa yu mettee rek nga bëgg a daw ci seen yi ak seetkat yi day mel ni gëmoo yàlla quoi moo tax man affaire u seet moom. sawaruma ci dara dara dara. li ngay wax noonu yëpp dëgg la li ngay wax yëpp dëgg la xam naa ko xam naa ne yow doo genre boobu mais nag parfois da koy laaj nga génn tuuti xool sa bopp xool nooy àdduna bi nan la tëddee xam nga comme fan yii yëpp loo dugg mu yàqu sa liggéey taxaw na lépp dëgër moo ne war moo taxoon nag ma ne pourquoi pas ma ñëw wax la ko ñu jëm foofu essayer ba xam. Sénégal bu ma sañoon dañuy bàyyi noonu parce xam nga Sénégal fii nii. seetkat yi dañoo bëri bari ba nga xamante ne ñi xamoo xamatoo sax ñi aay ñi mën ak ñi mënul xam nga te fi ma nekk nii vraiment amuma xaas bu may bu dem ñu ma koy seetalee yooyu noonu fi mu nekk nii moom su ma sañoon daal danga may bàyyi rek ma ma toog jàpp ci yàlla xam ni dina mës a changer quoi. dëgg la dëgg la loolu li wax noonu yëpp am na mais man daal tey li ma bëggoon mooy nga ñëw ñu dem foofu mu xoolal la rek. d'accord. moom duma ko sax waaj. xaaral ma ñëw léegi. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ça va ngeen def. wala su naa def. maa ngi fi. ça va. ça va bien. Ah, waaw kii laa la doon wax. Ah, waaw. jinna maymunal waama maayo kañ commencé man yow laay dëkk si bi man dem mënul nekk yow yaa nek da ya ngay sama juróom ñaari sama maam am na juróom jinne man ma ko jël ci loolu mama yow man da nga ne woon da ngay dem liggéey par 15 jours nga fi ah léegi ñëw fii luwee su benn puxus bu ndaw nekk ci dajale say xeer ak say lexet na ngay seet waaye léegi yow ñaar ngay seetee. bariwul de am na ñuy seeti ay trent mille ñii ay cent mille ñii ay vingt mille te man ñaari kii rek laa seetee. ñaar cinq cent mais mille francs. ñi ma fekk ci biti ñëpp ku ne mille francs lay joxe. waaw maman maman yow àq boobu noonu yow yow attan ko. attan nga àqu mama? Teler te leer na la yow li ngay wax dara hamu ci dëgg parce xamo dara xam nga ko nek fi di encaisser xaju nit ñi mama mama mama bamel pax bu xolal pax bu ndaw la te li gëna bon ci aduna muy fenn nga ndara nek fi di fenn nit ñi di yaakar di lekk seen xaalis mama ak boobu noonu diis na de. sama benn maam bi amoon na jabar a da ngay fe da ah, nit kenn du ko topp ba mu sës kii xam naa ne tey dañ koy xaw a pardonné tuuti rek mais moom sax daa jongo ma nag ci grand boubou yow daal boo nekkee mère di nga nekk mère ba am caaj am fili ay saa koo may jox soo dama ma faal. merci dama xool nag li mu lu ma la bëgg a wax rek dama koy xeeb. waaye dafa di nag li du du lu ne guleet say mbir la miin nga ko tàmm nga koo def. mbaa yaa ngi xalaat bis bis ñu la war a suul rek nit ñi wan la ginnaaw bàyyi la ak sa pax bu ndaw. daa leen waxi suul waay. waaw am fit bii ak ku la digal lii lii moom dañ la ko digal yow amoo pexe pour def lii dañ la ko digal yow. yéen rek maa yàgg soxoree de. yow sa jabar ju dañ kumpa ji rek nga àndal ndax sori naa leen de loin. ngeen ñëw di ma poursuivre lii may def nii pour xale yi nekk si orphelinat yi la. nga ne danga koy yóbbu ci orphelinat yi. sa xale yi amul loolu yow yaa ko gën a mérito. dèjà riba day uf nit da koy gonfler dèjà yaa ngi commencé gonfler bu ñu fi ñëwul woon xëy na sauvé la nii di nga exploser. bi kii xam nga dama mën a xare ci moom. yow fii nga feebar amee fi bañ àdduna ñooñu ñëw wër bañ doo nga amee woon de sonal ñu. Hmm. nga amee waat fi nopp. ñoo yaakaar ne faatu nga fa yàllaaw. ndeke dara dalu la. maman lan la. xanaa deretu gor tawul ci sa yaram. jinne de war bëgg naa koo wàññi sama benn maam moom na jabaru jinne de. yow yaay wax ba tey. yow am nga faru jinne. looloo tax nga mel ni nga mel. léegi ndox la la maman léegi dama yow nga nga résumé man c' li nga tegle fii ba tey man xaw ma nga am ba am inspiration euh, bi nga def nii li ay xeer la. ak xor ah ak xor. kii ndox la mm. lii lan la. tey nga koo bañ a laal balaa dara ah? kii daa xam dara. dinaa la weer nag ba nit ñëpp xam. li pël Fuuta naan ku ñëwli foofu lu bañ tey nag lu bi xeeñ na ku ne te dinañ ko génnee. yow moom jàppal yi dinaa la weer kii da nga war a wax ak moom parce que bu ma fi jógee nii nii nii dama koy weer. ma weer parce que maa ngi dégg ni ñu lay coowee ci dëkk bi. Hmm. te ñooñu xamuñu la. waaye dégg nañ tur bu ma weer dañ ci am kii de jas jasneer de 4 mètres. no ak bi la man man dam lay yeureum sax fi ko tok man dama xamni ni 1000 francs jaamoor yi nit ñi am ci yow yaakar yaakar lepp lo leen wax dëggal te yalla xamna ni li ngi leen wax dara du ci deug ngay lek seen xaalis ni def sa sa sa bu bu rëy. <laughs> waaw baax na ngay xale bu ndaw. Mm-hmm. yow nak top nga ma sank ba tay yaangi wax di critiquer ma lay rek neena la rang bi da gudd setal ma la kay ñi may setal maa ngi leen di waxal. Eh. li nga xamantene ñoo. moom moom ñoom noonu la ñu souhaité def maa leen koy wax kañ. bàyyi leen ñu def ko. eh da am pour wax ci kaw. waaw léegi jug leen dem. dimbali leen kon nañu wax ci kaw. tane gi wasaana na suufee rek tane gi wasaana jug leen mënuloo ma leen a seetaan. Jóode dama lay yóbbaale du ma la fi bàyyi. maa leen doon seetaan tane gi wasaana. abonnez-vous sur la chaîne Elvision.